ab mouvement bu yées bu judd ci dëkk bu sell bi di Touba tuddee seen bopp mouvement Farlo force alternative pour le renouveau du leadership et de l'unité mouvement boobee nag jubluwaayam ak lu tax ñu juddu njiit la di président Mouhamadou Lamine Bara Lo di dellusiwaat lan moo tax a jóg mouvement bii di farlu nga xam ne dañoo fas ne jàppale leader bu parti Pastef Ousmane Sonko ci élection yi ñu dëgmal ci 2024. Farlo force alternative pour le renouveau du leadership et l'unité dañ ko créer Touba li tax ñu créer ko lenn la amaana mooy lu tax ku nekk di dugg ci politique waaye solo sim am fii ñu nekk dafa ëpp muy teewal sa gox teewal sa gox na fekk gox bi daa nekk première démographie du Sénégal nekk deuxième ville économique te saa su nekk ngay gis ñàkk solo goo xam ne état euh, am na ko ci moom boo fa dëkkee am ful la li la war mooy nga jug taxaw loolu moo tax ñu yëkkati farlu Touba nag ci politique Mbàkke ci politique ku jug si Sénégal fi nga jëm si waaye jëm si googu nag dafa jot ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba dëkk Mbàkke dëkk ci gox bi yépp ji ci seen bopp gis ci seen bopp nag du xaalis bu leen di jox bu ñu leen di may du ay neexal yu leen di jox mooy état bi nga xam ne moom la ñuy fal am responsabilité investir ci gox bi loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi fi dëkk nga xam nguur nga ñàkk bañ a xam nguur saa soo xëyee li jëm si yow état bi di ko def donc politique publique yoo xam ne yittewoo nañ ko te nag Touba bu ñu nee politique publique du lu ñu yalwaat lu ñu yaayoo la yaayoo nañ ko si suñu dayoo ci dëkk bi yaayoo nañ ko ci démographie yaayoo nañ ko ci yaakaar gi nga xam ne moo am ci dëkk bi loo tax ñu créé farlu créé ko ngir fekk si ñi nga xam ne tey jii ñu ngi ci gox bi di yëngu te seen yéene nekk saa suñu yëkkatee seen cadre rek ñu naw waa waaye tamit saa suñ yëkkatee seen kàddu nga xam ne waa Touba seen njariñ ci réew mi yaatu na. moom kii yor seen kàddu di Moussa moom moomi nag mu ngay xam ne ne yoon bu ñu jëm dee doonut yoon bu yomb wante pakk yi nga xam ne mu ngi ci lépp ak galgal yi fasken nañ koo dékku ndax nag laata ñuy door ndaje mi la rek ay menaces ak xoqatal daal dinañ ko jot waaye teewut fa ñu jëm dinañ fa yegg. fii ma toog di wax ak yéen avant ñuy wax rek autorité bi ñëw na police ñëw na ku ne ñëw na ñu lu waral ndaje mi lu waral woote bi. waaye yooyu yëpp ay ay xoxtal la rek ak ay yëfi tiitalaate yoo xam ni daanaka gone yi judd sax xam naa ci lañ fas yéenee màgg ndax depuis que euh, président Ousmane sonk dugg ci politique daanaka xoqutal ak tiitalaate ak euh, fexe ba nit ñi duñu am seen liberté pour mener seen ay activités notamment activité politique yaakaar naa mi ngi bëgg yaatu ci réew bi waaye loolu nag liñ naan euh, jooyu mbott ci déeg warul tere gaynde naan moom honorable député Serigne Cheikh Thioro moo leen daal di dalal di xam ne ne ñii de yàgg nañuy def ay activité jëmale ci parti bi di PASTEF ndax nag ba ñuy door lii di parrainage yi laaj nañ leen ay fichier ñu jox leen ñu daal di collecté ay parrain yu bëri jébbal ko parti bi di PASTEF. li ngeen njëkk def avant ngeen di ñëw di ñu jàppale wala ngeen di ñëw di ko fësal loolu moo ñu njëkk soge ndax bi campagne de bi démarré laaj ngeen ñu ay fichier ñu jox leen ko. ngeen dugg ci koñ yi seeni militant ak seeni sympathisant ñëpp pare neen ngeen ñëw jébbali ko te àndul ak benn coow loolu rek boo leen cee moom doy na kon loolu na ngeen xam ne président Ousmane Sonko yëg na ko. ne changement dafa jot bu ñu ne changement dafa jot nag war naa mën a démarrer fépp mais Touba moo ci rawati ndax recensement yi nga xamante ni ANSD def na ko barki démb wane na département Mbacké lan lay posé ci Sénégal kon département boobu ku fa dëkk war ngaa mën a yittewoo leneen lu dul def politique politicienne te ñun ci loolu lañ leen xame mooy taxawaay bu rafet. heure bu seen gox soxlaa ngeen taxaw ci ba mat sëkk kon ñu ngi leen dalal jàmm fas yéene ànd ak yéen liggéey bi nag ànd goo xamante ni duñ ci dem ak réserve dañ ciy dem bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yéen yéen a ñu wan li tax ñu war a ànd ak yéen ndax nit moom bu fekkee ni dafa laa jox kàddoom yéemu ca jox la kàddoom mais wan la ko nga gis kooku amoo droit muy woote dara nga di ko ko boycotté kon daal ñu ngi ñaan yàlla yaakaar ji ngeen am ci Ousmane Sonko am ko ci Pastef suñu borom bañ a yaakaar jooju te nañ jort na yaakaar jooju tas. moom Serigne Cheikh Thioro daal di profité ci ndaje mi le ngir rek tontu yenn kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci seen leader bii di Ousmane Sonko ci ay tuuma mu xam ne ne lii yëpp du lenn lurut kii di Amadou Ba di candidat bu benn bokk yaakaar te nag ñu ngi koy jox dëgg daje fii ak élection yi ñu dëgmal bu campagne dooree lépp loo xam ne xam nañ ko ci moom te ñoom nag xam nañ ko bu baax a baax. lépp dinañ ko fesal ba ñëpp xam ne kàddu yile di jib di jógee ci ay homme affaire ba ci ay taskatu xabaar du kenn kurut Amadou Ba moo leen yebal. bis nañ candidat Benno Bokk Yaakaar bi fan yi fay na ay homme d'affaires fay na ay journalistes yu jóge bitim réew fay ay kilifa ñu topp ci deru koo xamante ni ma nga ca kaso ba di ko jabolise guddi ak bëccëg may wax nag ne ya saaga yàkkamte xeex la xaw ma noonu la ko la fa waxee. bi Ousmane Sonko taxaw di parcelle Amadou Ba ku ma xam la ku ko gën a ragal niwul ci kaw suuf boobu Ousmane Sonko waxantuwul mais nag bu fekkente ni dafa bëgg a làqatu ci ginnaaw ay nit di leen yebal ñuy saaga Ousmane Sonko yëmu ci sax tarixa bu toll na yoonu murit mu yebal ay nit ñuy comparer tarixa boobu pour ñu mën a corrompre la pour ñuy wooteel ay nit loolu lu garaaw la ndax lii ngeen di seen lépp man du ma ko tuumaal kenn dama naan Amadou Ba moo des ndax koo gis muy saaga Ousmane Sonko Amadou Ba moo la fay pour nga saaga ko koo gis muy bind ab titre bu ñaaw Amadou Ba moo la fay pour nga bind ko kon loolu dafa jot moom mu arrêté ko te xam ne li muy def bu fekkente ni arrêté wu ko bu ñu jógee ci moom waxuma la campagne ci réew mi mais dootu gënati benn yoon ñu def gis ci télévision bi moom bu ne xam nañ ko moom war naa xam ne xam nañ ko te buñ ne la kan moo xam Amadou Ba ci Sénégal neen Ousmane Sonko du ko ko ñaareel te moom xam na ne Ousmane Sonko xam na ko te buñ démarré campagne bi xam ne Ousmane Sonko xam na ko. moom jiit la Mamadou Lamine Bara Lo di yokku ne jamono ji la dee ñi nekk ci réew mi tëlewuñu de wante danoo amatul yéene. ngir daal di defar dëkk bi ba tax na nag ñuy ñaax ndaw ñi ñu toog ci dëkk bi 2024 ñu daal di soppi lii di réewum Sénégal ci wàllu koom fexe ba dëkk bi la di Sénégal ñu tabax ko jëlee ko ci loxo yi mu nekk. loolu moo tax tey jii euh, mouvement farlu jël engagement boo xam ne dafa cohérent ak euh, li tax ñu nekk ci politique muy engagé wu pour suñu communauté. moo tax ñu engage wu di côté du président Ousmane Sonko pour changement waaye tamit engagé wu ci orientation yi mu jël muy ñaar yi am solo. ndax tey jii daa am nekk ci réew mi euh, jox xar bi Sénégalais yi ne leen am na loo leen bëgg ñun dinañ taxaw ba doom waa nguur gi ak ñi leen jàppale noonu lañ taxawee moo tax tamit ñi nga xam ne ay sénégalais lañ bëgg changement bëgg Sénégal ak li yàlla may mu mën kaa jariñoo bëgg bu nit ñu feebaree mën a faju ci lu yomb bëgg nit ku jug yàlla sutural la ba la nga am ku si néew ba demee marché am loo mën a dundale sa njaboot bëgg koo xam ne am nga doom mu war a jàngi njàng ma yomb bëgg ko xam ne boo jàngee ba pare soxla ñu soxla woo ñu lay may loxo mais système bi mel noo xam ne ku am mérite di nga insérer wu ñoo war a taxaw tamit xeex ba nga xam ne changement bi ñu bëgg te mën da ñàkk lu mu jaral ñu si des mu jaral leen ko loolu mooy taxawaayu mouvement far moo tax euh, système bi am nañ problème loolu nag mooy li fi xew fan yi yëpp accusation yi sos yi waaye nag dina yomb ci Sénégalais yi ndax bu ñu sosalee Ousmane Sonko ñu ne ku ko ñu wax benn nit ñaari nit ñetti nit mooy ñett ña ko sosaloon démb ba tey leeraluñ ko ñoo xëy sosaatal ko donc loolu du lu bees sénégal yi xam nañ élection yi nag enjeu yi bëri na wax naa Touba Mbacké wax département Mbacké mais au niveau national enjeu yi bëri na bu ñu nee enjeu yi bëri na mooy Sénégal yi nga xam ne jeunes yi fi nekk waroon a toog construire dëkk bi mais ñu si bëri si ñoom perte espoir ndax injustice mm-hmm. ci fànn yëpp nag. ba tey ji mu jaral leen ñuy jël désert bi jël géej gi wala di jël yeneen risque ngir dem ci yeneen réew liñ bëgg ci Sénégal mooy li président Ousmane Sonko wax construire économie boo xam ne dina am équité ak égalité de chance économie boo xam ne dina jox opportunité Sénégal yépp ndax ngal la bëriwuñ bëri nañu ressource donc gérer suñu ressource ci bonne gouvernance ci njub waaye li ëpp solo ak yéene ndax ñi fi nekk ñàkk ñu xam-xam yéene lañ amut te yéene mooy lépp donc Sénégal boo xam ne yéene moo koy yor yéene nag euh, deful lépp waaye lu mu nekkul di àgg lu amul yéene du àgg te yéene mi ngi fi te boo nee réew ñu ne la age médian bi 19 ans la lu ëpp 65 pour cent 70 pour cent population bi amuñu 35 ans jeunes yooyu bu ñu defee benn say bëgg changement dara mënut a tax changement am. waaye tamit dara mënta tax Sénégal bu ñu bëgg a ñu construire ko. mouvement bii di mouvement farlu nag jog ngir fas yéene jàppale leader bu parti Pastef Ousmane Sonko ci élection yi ñu dëgmal ñoom de ñu ngi xam ne ne bu dut Ousmane Sonko yi képp koo xam ne joxoñ na leen ko dinañ fas yéene ànd ak moom ngir fexe soppi réewum Sénégal 2024. farlu tamit dafa tànn ànd ak le président Ousmane Sonko gunge ko ci élection yi. tànn tamit bépp orientation boo xam ne moom joxe na ko par rapport ak candidature donc yooyu yëpp président dina ci ñëw leeral tamit naka lañ mën a def ba li nga xam ni moom lañ dëgmal muy élection présidentielle yi yenn stratégie lañ mën a teg pour gagner ko haut la main dafa mel leer na ba pare sax mouvement lu doon amal lancement seen mouvement boobee ngir rek faske ne jàppale leader bu parti Pastef Ousmane Sonko ci élection présidentielle yu 2024 yi ñu dëgmal ñoom nag nee nañ li ñu bëgg ngoonu 24 février jàpp cinq ñu fexe daal di jël 300 mille voix lu mu néew néew ci département bu Mbàkke ndax nag ndamul njiitu parti Pastef di Ousmane Sonko ci gox bii la war a jógee te mouvement boobee fas yéene ci liggéey liggéey bu mucc ayib. mais suñu defi honorable député dans le département de mooy optimiser suñ défi du suñ suñ défi du gagné suñ défi du am 100000 voix du am mille voix mais sur les près de 400000 voix du département suñ défi défi mooy au moins lu mat 300000 voix département Mbacké war kaa mën a yëkkati teg ko ci loxol Ousmane Sonko ngir présidentielle yi victoire bi génn fii ci département Mbacké. loolu nag lan la organisation la loolu lan la méthode la. ndax ñi jeunes yi engagé wu ci politique mag ñi taxaw bëri lool may leen loxo ndax tamit li koy fàtte dynamique Ousmane Sonko wala ñi nga xam ne dinaa ñi bëgg système bi changé du ay du ay rek ay mag ñi ci yàgg fi xam ni politique yàgg a doxi am lu leen ci yàgg a metti tey nag ñu gis ñoo xam ne tey jii taxaw nañ ngir changé loolu mooy mag magi Pastef waaye mooy mag ñi xam ne ñu ci kër yi politique guñ génn ñu waaye seen yéene ji di di di jenn moo tax ñun ñëpp tey jii ñu war a ànd bi défi boobu moo tax su ma nee cent mille dans le département de Mbacké lu possible la te bu ñu liggéeyee nekk benn def mayage bi wër euh, def sensibilisation bi wër nit ñi jekk nañ ku leen jàppale wan leen yoon lañ bëgg te ku bëgg ñu wan ko yoon ak ñi engagé wu ngir wane yoon seen doon daje war naa mën a neex mouvement boobee nag doon amal lancement am ni ki tey jilee ci alxames gi ginnaaw seen ndaje mi nga xam ne wowoon nañ ñi di taskato xabaar yi ngir rek fésal seen ànd ak seen jàppale parti bii di Pastef ngir rek fexe daa di fal Ousmane Sonko wala képp koo xam ne joxoñ na leen ko ngoonuk 25 février ñu daal di dégg viiw